أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala toll ba tey ci suratul baqara di jël tey aaya 249 muy nekk benn aaya bu nu sor sunu borom subhaanahu wa taala di nettali keroog ba buur boobu génnee wala waa jooju génnee wala nit ku baax kooku génnee ndax nit ñaa ngi werante na yonent la wala du yonent lu ci mën a wér nekk ci mooy waaju baax la ab yonent moo ko tànn teg ko ci kanamu benn mbooloo benn xeet mu ne innahu lamma xaraja taalut bil jaysh waa jooju ñu naan taalut keroog ba mu àndeek soldaar yi génn mu ànd ak armée bi ànd ak xeexkat yi axbarahum anna allaha taala muxtabiruhum xamal na leen ne moom taalut ne leen ne maa ngi nii di ànd ak yéen di génn ñu war a liggéeye liggéey yàlla subhanahu wa taala waaye nag na ngeen yëg ne nit du jóg jëm ci yàlla lu dul ay nattu bàyyeekoo na ci yàlla jëm ci yow mu ne leen ne na ngeen yëg ne yàlla dana leen nattu fi sayrihim haza ila qitaali aduwihim ci dox bi ngeen di dox jëm ca xeex ba di xeexi jeeg seen noon na ngeen yëg ne borom bi subhanahu wa taala dina leen ci nattu loolu moo tax mbokk yi nattu nekk benn jumtukaay bu borom bi tabaraka wa taala di xàmmee ay gaam amul benn nit buy wax ne damay jóg jëm ci yàlla lu dul am ngay natt alif lam mim ahasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na inna allaha ida ahaba qawman ibtalaahum yàlla bu bëggee ay nit nattule wa aksaru nnaasi ibtilaan al anbiya ñi ëpp ci nit ñi ñi yàlla natt mooy yonent yi kon amul ku yàlla dul natt moo tax taalut nee na mbooloo mi ñu àndal ñu war a xeexi ah na ngeen yëg ne yàlla de dina leen natt ci dox bi ngeen di dox jëm ci seen noonu natt bi lan lay nekk léeg-léeg léeg-léeg natt dina nekk ci ci yow natt bi jëw tegu sa kaw sa yaram léeg-léeg mu ñëw nekk ci sa alal ci yow la ba tey léeg-léeg mu ñëw dal ci sa jabar sa alal sa yow la ba tey léeg-léeg mu ñëw dal ci sa doom léeg mu dal ci sa wéyjur bu góor sa wéyjur bu jigéen léeg-léeg mu nekk sa ngay liggéeyee ku nekk ak nu la yàlla dina toog léeg-léeg nga gis koo xam ne rëcc na lu nekk waaye natt yàlla nattoo ko sàngara wala yàlla nattoo ko nga gis waa joo xam ne du tux du naan du waaye yàlla nattoo ko ay jigéen ku nekk ak natt bu la yàlla di natt ñii ànd ak taalu te di xeexi ñoom li leen yàlla nattoo mooy bi nahrin benn dex dex yantahuna ilayhi wa hum fi harrin shadid wa arshin shadid bu ñu doxee daanaka mën nañoo dox ay kilomètre kilomètre kilomètre bu ñu yegsi ci jamono mbooy la jamono tàngaay dañuy yegsi fekk kër gaa ngi sedd dex gaa ngi neex waaye dañ leen ne bu leen ci naan de gis ngeen yàlla banu israil lan leen yàlla na toon mooy bu leen rëbbi samedi bu leen nappi samedi gis nga pourtant xoolal li xoolal ñi lu leen yàlla nattoo mooy da ngeen di xeexi ci jamono tàngaay la ci jamono mbooy den di ngeen dox ba sonn waaye di ngeen ñëw ci benn dex mais attention ci kenn naan nag ku ci naan rek bokkatoo ci ñun ab yonent ab ab buur mooy wax ak yow de boo xam ne ab yonent moo ko fal nee na ku ci naan bokkatoo ci ñun jullit yi ku bokkul ci jullit yi foo bokk ndeysaan gis ngeen nit dina ko dégg mu ne ah naan fii rek lu ci nekk naan lu ci nekk mooy lay mooy lay dégg ni noonu lii rek nga dégg ñu ne góor ak jigéen du ñu nuyu nuyu rek lu ci nekk mayu mais yéen di ngeen a bëri problème quoi non déedéet yàlla moo ko tere xoolal ñu lu leen yàlla tere mooy xoolal ku dox ba sonn ci naaj bu tàng nga dajeeg ndox lu xel xalaat ah mais yàlla ne la bul naan de bul naan mais xam nga la mooy wax bi fii ndeysaan mooy yàlla lu mu wax rek am na lu ci nekk yow xamu xam nga yow lu la war mooy sami'na wa ataana ndax yàlla moo xam sabab bul lu tax ngay nga soo naanee nga mu am lu xew kon yàlla lu mu wax noonu la est-ce que yàlla dafa soxor ba mu ne buñ naan ah gis nga fii danañ fi jàng lu bare bare bare bare mënoo nekk jullit te doo déggal sa njiit nga ànd ak njiit ku la jiite gis nga ci armée dafa am benn règle boo nekkee soldat dafa am benn règle bu buñ lay wax bare da ngay exécuter ba pare doog a discuter ah da ngay buñ la noon reyal da ngay rey ba pare dafa naa wa mais mais lu tax ma rey ko mais c'est trop tard mais xoolal parce que lu tax xam nga lu tax ñu lay former formation boobu dañuy bañ noon yi di song nga taxaw naan mais est-ce que duñu négocier fekk ñoom yegsi nañ dañ la ne exécuter ba pare nga doog a discuter soldats yi rek loolu lañ leen di former waxuma laak nag jullit yi discipline mooy nga déggal ki nga ki la jiite mais xoolal ñun jullit di tey loolu moo tax amuñu amir xoolal fii may wax ak yéen fii may wax ak yéen fii ñu toog ni tey ci jàkka ji Israël mi ngi bombardé Palestine ba rey ci ab ministre bu bokk Palestine fii ma toog nii arab yi ñi ngi ñi ngi ñu ngi réunion seen ministre des affaires étrangères yi yan solution la ñuy jël chaque jour chaque jour dañuy rey ñoom ñuy réunion yan solution bu ñu bu kenn waxee ñu tàccu la waaw te problème Palestine du problème arabe loolu moo ci métti léegi laa ko mujjee wax kuñ jox kàddu da nga naan ñun arabe yi mais ndeysaan problème mu islam la fekk bàyyi wu ñuy wax ñun arabe du réglé wu puisque troisième mosquée bi ëpp puissance ci l'islam moom lañ nangu problème boobu la première xibla jullit yi moom la ñuy toroxal noonu fi jullit yi njëkk a jublu di julli kon du problème arabe mais problème mu islam la. dëkk boo xam ne yàlla daf ko tudd ci alxuraan jàkka joo xam ne yàlla daf ko tudd ci alxuraan jàkka jooju la ñuy toroxal mooy masjidul aqsa fi nga xam ne yonent bi rañaan na dem fa jóge fa jëm kaw asamaan jàkka joo xam ne yonent bi teg na fa tànkam ba julli fa ñaari ràkk da ngay jàng jax ci siira ñu ne yàlla dafa dekkil guddi googu yonent yëpp yonent yàlla muhammad jiite leen moo tax ñu tuddee ko imaamil mursalin imaamu ñi yàlla yónni kon ñii ñëw nañ ba fii yàlla nattu leen waaye walam yazan lahum fi charbi minhu illa ma kaana min garfa nee nañ leen yéen a ngi nii nag liñ leen wax ngeen laal ko ci dex gi mooy kenn ku nekk daa di as xam ngeen as xam nga as mooy lan mooy nii ci sa loxo as daa di guux pare loolu lañ la wax loolu lañ leen may bu kenn naan lu dul nag ah ku ku ku ñam rek nii rek ci sa loxo daal di def sa gémmiñ waaw yow baal nan la loolu lañ leen permettre mais dëgg-dëgg dañ leen ne bu leen naan ku ci bañ a laal sax ci ndox mi moo gën su demee ba mën a ñàkk mooy nga laal nii ci sa loxo daal di def sa gémmiñ mooy as bu doon kook la kook kook ñu ne da nga tànk kook bi daal di naan benn kook lañ la may ah départ nañ Euh, ñëw nañ ba ca dex ga sunu borom di ñu nettali ne na genn wàll gi armée bi euh, bari woon nañ trop trop trop trop trop trop borom xam-xam yaa ngi wax seen lim ku mel ne ibnu abbas boo demee ci taf tafsiru ibnu kasir am na lu mu wax nee na noonu la ñu toll ndeysaan allahu akbar nee nañ nekkoon nañ sabuuna alf juróom ñaar fukki junni soldaar lañu woon waaye yàlla nee na juróom ñaar fukki junni ñooñu dañoo naan ba mu des tuuti ëpp a naan ba mu des tuuti gis ngeen xam ngeen lu tax ñu naan mooy ñun liñ dal te yàlla mooy buur ci ñun mooy sunu buur lu mu ñu tere gis ngeen koor lekk dafa dagan lekk ak naan dafa dagan mais ci weeru koor ñu ñu araamal ko ci yow lu dul ci ay heure pourtant lu dagan la lekk ak naan dafa dagan fi mu nekk nii ñun dañu lekk di naan bëccëg yi parce que waxtu yi dafa dagan yàlla moo ñu ko daganal mais koor ñu ne la bu ñu noddee salaatu lekk araam na ba timis jot waaw ni ngay bàyyee sàngara nga koy bàyyee bàyyee lan moo la ciy génne mooy nga jëfe ko waaye boo fa nekkee naan ah naa su ma xawee mar boog naa naan guux benn guux bu ndox la su ma xëyee xiif naa dagg benn mburu lekk léegi yow mooy tënkootoo yow génn nga ci génn nga ci règle bi la tënkoon banu Israël dañ leen tere woon nappi samedi laa taatadu fi sabt da leen yàlla wax seytaane ñëw ci moom taaral leen ne leen te gis nga li doy waar mooy yàlla bu teree dara rek seytaane day ñëw di la ko rafetal xam ngeen ñoom bi leen yàlla teree samedi napp nappi bu samdee rek génn yi dañuy ñëw ba ci tefes gi di pirti pirti ni naan leen nii seen caaxoñ yi di bronze wu di jël naaj bu samedi passé dootuñu gis pëcc dara dañuy dellu ci biir géej gi dem yoon dem seen yoon seytaane ñëw ne la xam nga nu ngeen def da ngeen di bàyyi ba samedi bu jën yi génnee ngeen jël seen i mbaal fiile kor jën yi ay kilomètre ci biir géej gi nga xam ne jën yi duñu mën a delluwaat ngeen samp bant yi ba mu dëgër ngeen bàyyi ko ba dimanche ngeen ñëw jël ko bu yàlla waxee ngeen ne ko ñun nappuñu samedi dimanche lañ ko jàpp dimanche lañ ko indi suñu kër dëkk ba daal di xaaju ñetti xaaj ñenn ñi préparé pour dem ñenn ñi ne moom ñoom seen yoon nekku ci dem ñoom xalaatuñu dem moom ñu ngi fële toog ñenn ñi préparé pour dem beneen groupe ñoo di waar groupe bi bëgg a dem ñee nga xam ne ñoom seen yoon ñu naan naan naan ñi nga xam ne ñu ngi waar ñi bëgg a dem bàyyi leen ñii ñi xam nga ne yàlla day leen nar a alak li ma taizuna qawman allahu muhlikuhum lu la ngeen di waar ñoo xam ne yàlla day leen la ñu dem biñ demee jàpp ji nii kor fiile yi ñoo seen kër ñu bàyyi ba dimanche ñu dem di ko jëli yàlla def leen ay mbaam xuux ñoom ñëpp ak ay golo wa qulna lahum kunu qiradatan xaashiin ñoom ñëpp yàlla def leen ay golo moo tax yàlla lu mu tere rek noonu la su yàlla ne bàyyi leen bàyyi leen waaye xaaral ñu def ko nii xaaral ñu def laale ko nee mooy li ñu tere nii mboolem lu ñu yàlla tere woon tey taaral nañ ñu ko ba koy def wala mees wala sàngara xoolal xoolal barki démb damay sang benn néew boo xam ne xale bu ndaw ay 35 ans waaye danaan ay lëg poo nag tux poo nag cigarette ak wallahi sang nañ ko ba pare yëf yi di génn ci gémmiñ gi di sotteeku mel ne godorong ñuul kook dañ ko tere bàyyil nga njëriñ laa di nga ko bàyyi ngay dund wala nga bàyyi ko boo dee su la yàlla tere dara nag nga wañ koo bàyyi ba nga dee mooy musiba fekk na la ci ñii yàlla da leen ne bu ngeen demee bu leen naan ci dex gi bañ demee ba yegg juróom-ñaar fukki junni lañu woon genn wàll mën nga ne juróom-ñaar fukki junni yi juróom benn junni yëpp naan nañ lan moo des ci soldaar yi junni ñoo naanu kon lii lañu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal tey ci aaya bi muy aaya 249 ñëwee ci nas bi sunu borom subhanahu wa taala mu ne audu billahi min alshaytani rrajim بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصلت طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلى من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ولما جاوزوه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله wallahu ma sabirin sunu borom ne falamma ba nga xamante ne fasola quitté na bàyyeekoo na départ na taalut buur boobu ñu naan taalut in fasala min addiyaari wa xaraja yuridul adu quitté na ca kër ya bàyyeekoo na fa génn dëkk bi jëm ca àll ba jàkkaarloo ji ak noon bi bi mu génnee dox ay kilomètres yenn boroom xam-xam yi dañuy laaj ñu ne hal kaana taalutu nabiyan est ce que taalut yonent la woon yonent dañuy laaj ndax taalut yonent la woon waaye almuhim li ci am importance mooy ñu xam ne taalut abdun saalih jaam bu baax la woon nit ku baax la woon moo tax yonent boobu tudd Samwil daal di koy tànn mu daal di jiite peuple boobu nga xam ne ñoom ñoo ne woon nañ leen falalal buur ñu ànd ak moom xeexi ci yoonu yàlla borom bi nee na ba mu quitté kër ya départ ànd ak soldaar yooyu nga xam ne juróom ñaar fukki junni lañ ci yoon wi qaala nee na leen inna allaha naka yàlla mubtalikum dana leen nattu waaw dana leen nattu de yàlla dana leen nattu képp ku jóg jëm ci yàlla bu yoboo nga pare ut géño xam ngeen géño xaaral xaaral ma ma ma ma wàcce ko ndax ngeen gën a dégg nga ut sentir ndax geño day day sori képp ku pare pour dem ci yàlla bu yeboo nga ut sentir bu yeboo nga ut téeñ xam ngeen téeñ ah xamoo téeñ boo yenu pañe wala nga yenu siwo nga teg ni benn sagar ba pare nga loolu mooy téeñ ku jëm ci yàlla bu yeboo nga ut ñaar yooyu nga takku ut téeñ takku pour dem téeñ pour lu ñëw nga yenu sinon doo dem waaw doo dem de ah pourtant mbokk yi ci àdduna rek ku bëgg nguur fi mu ne nii ci ñun ñi toog fi ku bëggoon dem pale day yomb wala day day day métti day métti ah laaj leen Ablaye Wade pour mu dem pale ñaata at ah 26 ans gis ngeen gis ngeen Macky Sall balaa muy dem pale te loolu àdduna kese la léegi nag yow nga bëgg a dem ci yàlla waaw nga bëgg a dem ci yàlla ñeenti nit duñ bàyyi nit mu dem ci yàlla ñeenti mbir duñ bàyyi nit mu dem ci yàlla bu njëkk mooy seytaan kon da ngay xeex ak moom pour nga dem ñaareel ah bakkan du la bàyyi nga dem ci yàlla ñett ñett àdduna du la bàyyi nga dem ci yàlla yi ni ma wax seytaan bakkan àdduna saa yoo sooboo dem ci yàlla ñu ñëw toog xoolal bala ngay see xeex ak àdduna ba buñ koo gañee nga pare bëgg a xeex ak sa bakkan bii bu bu koo gañee nga pare seytaane la maa ngi nii nag day fekk dee jot te ñeent ñett yii nii boo leen daaneelul doo dem ci yàlla boo leen daaneelul doo musa dem ci yàlla moo tax saa yoo départ rek ñoom tamit ñu départ waaw dañu musa laaj benn waay waaw lu sax gaa yi nekk ci stade yi ak baar yi seytaane yi du dem ci ñoom mu ne lu mu leen di doye ñoom ñu wuyu nañ ko ba pare lu leen di doye ñoom wuyu si nañ ko ba pare lu tax muy dem di leen war di perte moom kay xam nga ñoom ñoo ko sonal mooy ñu mel ne yéen ñii ndeysaan nga xam ne xoolal lii li muy xumb xumb xumb yéen yéen a ngi ñëw toog fi léeg-léeg sax nga bëgg a dem mu ne la seytaan daa lay envoyé bi dara wala bakkan ñëw wala benn programme ñu fàttali la ko nga ne ah xaaral rek ma bàyyi ba samedi bii di ñëwaat garaaw dinaa ko rattrapé yal nañu yàlla jubal kon dañu xam ne yoonu yàlla kenn du fa dem loolu yàlla nattu la loolu lañ ko dugal suñu bopp yi natt fu nekk nag lay bàyyeekoo lu ne lu ne fu ne la natt di bàyyeekoo ci loo ko foogul mun na faa nekk waaye almuhim saa yu la yàlla nattoo na nga fexe loolu ma wax nga takku téeñu ba mun koo yenu dem egg ci yàlla kenn du ne damay dem ci yàlla rek daal di mu daal di sedd na yomb trop déedéet foog moom métti jàng leen histoire ñi dem ci yàlla ñëpp dañoo sonn amul ku ci ku nelaw ba yegg ci yàlla jàng leen histoire rek ñi dem ci yàlla ñëpp a sonn wala ñi bëgg xaalis sax dañoo sonn instant bi da ngay dégg ñu ne xaalis rek wala bàmmeel bu sori waxuma laak nag ki bëgg a dem ci yàlla mu ne leen fa inna allaha naka yàlla mubtaliikum dana leen nattu bi nahrin ci benn dex goo xam ne bu ngeen doxee ba sonn ba mar ci tàngaay bi ci mbóoy bi ci coono gi ah dex baa ngi nekk seen wet boroom xam-xam yi wax nañ ci dex googu ñu ne mu ngi nekk ordon xam ngeen ordon ordon moom la ñuy wax léegi tey ji jordanie ci arab ñu ne ordon waaw mu jordanie la dex gi nekk moom la ñuy wax naxru sharia yàlla dina leen nattu ci dex googu nekk seen kanam ngeen doxee ba yees dex gaa ngi foofu waaye na ngeen yëg ne fa man shariba minhu képp ku ci naan fa laysa minni bokkatoo ci man bokkatoo ci pourtant wax ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na wax ju mel noonu wax na ko commerçant yi mu ne leen man ghashana fa laysa minna kuy tricher kuy wurit dañ noonu bokkoo ci ñun waaye xam nga lu garaaw léeg-léeg yàlla wax yenn baat ci alxuraan wala yonent bi wax nit ñi buñ koy firi ñu ne dañu ne laysa minna boobu wa waa ji wax leen dañu ne bokkoo ci ñun ci xeex bi bokkatoo ci ñun ci xeex bi génn nga ci xeer xeex bi maanaam lii ñu wax bu ko kenn def ku ko def tey jii moom àndatoog ñun kon suba mën ngaa ñëw aka neexoon ñu bàyyi wax ji rek laysa min laysa min nii bokkatoo ci ñun maanaam bi dafa leer nga ànd ak nit mu tere la nga def mais lii mooy mooy bokkatoo fi wala dafa leer nañ surtout nag mbir moo xam ne dafa jëm ci xeex waaye gaa yi daal di lànk dëgër bopp li leen seen buur boobu daal di wax mu ne leen faman shariba minhu képp ku ci naan naan xam ngeen ko mooy naan ba fa laysa minni bokkatoo ci man mu ne waman lam yataamuhu képp ku ko ñamul nag ku ko mosul fa innahu minni kooku de moo ngi ànd ak man ku ko mosul waman lam yataamuhu képp ku ci ñamul mosoo ko yaa ngi ànd ak man lam yashrab minhu ku ci naanul mu ne illaa lu dul man igtarafa ku as garfatam benn as bi yadihi ak loxoom bi lu dul ku as rek ñëw ba ci ndox mi rek daal di ne fas ci loxoom benn nag garfatam la wax gurfatam bi yadihi ak as benn as bu doon kook la da nga naan saraax benn kook benn kook daal di naan pare ci ndeysaan borom bi nee na bañ demee ba yegsi nag ci ndox mi lan lañ def mu ne fa sharibu minhu ñoom ñëpp ñu naan ci ndox mi xam ngeen nuñ doon naanee utuñu sax loxo utuñu sax pot dañoo ñëw naan ni gëlëm di naanee ñëw rek zip sëgg naan ba kenn xàmmeetu leen pourtant même li ngeen di dégg ni match bi match yi joueur bi bu footballee ba sonn bu ñëwee ci bantus bi ñaan ndox léegi sax lañ ko kii nii def ci ay place kii ndaw bu bu jegee rek ñu sànni ko benn mbuus mais bu njëkk ba nga xam ne siwa lañ doon teg boo nee nii benn waaye day xëcc pot bi guux rek daal di jàpp pot bi lu tax parce que bu sa biir feesee da ngay doon ndox mi di gullux gulluxi même football bii ngeen di gis léegi rek la affaire yi avancé ba ñu def ci mbuus yu ndaw ndaw boo jegee rek lañ lay sànni nga naan daal di sànni mbuus mi ci terrain bi dem sa yoon mais bu njëkk fa nga xam ne dañu indi pot teg boo ñëwee sax waa benn waaye moo lay tànqal tuuti nga naan mu ne la ni nga delluwaat ci biir bu fekkee loolu waxuma la ak nag lii beneen bi mooy yàlla lu mu tere rek bàyyi bu kenn wax ne naan naan waaw naan ban bàkkaar moo ci nekk naan ba su la yàlla teree nga bañ a bàyyi yàlla bu la teree rek bàyyi suñ borom nee na fa sharibu naan nañ minhu ca ndox ma il ci dex ba illaa lu dul qalilan lu néew minhum ci ñoom juróom-ñaar fukki junni lañu woon juróom-ñaar fukki junni su juróom benn junni yi naanee wala juróom benn junni ak nangam naan lu ca des juróom benn fukki junni waaw juróom ñaar fukki junni juróom benn fukki junni naan ak tuuti ak juróomi téeméer wala ñeenti téeméer lu ci desati ah ndeysaan problème am na borom bi nee na naan nañ nag léegi ba mandi mu ne fa lamma jaawazuuhu ba ñu paasee dex ga ah allahu akbar huwa moom kan taalut wallazina amanu maahu ak ñi gëm yàlla ànd ak moom qaalu ñu ne laa taaqata lana alyawma bi jaaluuta wa junuudihi ñu ne a ñun mënuñu résister de gis nga xoolal ndox maa ngi commencé def effet yi la ñu naan résultat baa ngay génn lan la ñu ne ñun mënuñu dékku ñu ñuy xeexal de kuy de kuy kuy footballiste naan man de ñoo ngi dem mais duñu gagné fu ngeen jóg toog leen ñoo ngi nii di dem waaye laa taaqata ñun de mënunoo dékku amuñu benn résistance tey al yawma aujourd'hui tey jii bi jaalut ci jaalut maanaa jaalut la ñuy xeexal moom la moom la tubaab bi naan ah Goliath ah du jàngoon ngeen ci histoire nu mu toll Goliath du jàngoon ngeen ko ah xam ngeen nu mu tolloon loxo bi moo tolloog yéen loxo bi loxo bi moo tolloog kenn ci yéen fii loxo bi benn loxo rek benn loxo bi ku ma daan xool nii ngay def nii ci kaw ay mètre noonu la tolloon su dëggoon tànkam mu teggi tànk bi nit mën na cee nëbbatu loxo bi du ci xaj pour mu génn la ñii waa jooju lañ doon xeexali ci moo tax bañ demee ba naan ci ndox ma nag ah ndeysaan problème commencé am ñu commencé di saalit ñu ne laa taaqata lana al yawma ñun de tey mënuñoo dékku bi jaaluuta ci jaaluut wa junuudihi ak ay soldaaram ndeysaan allahu akbar mënuñu koo dégg fa aalanu ñu yëgle in hisamahum ne ñun gañe nañ ñu wan sarafu faarina yamuñ ci lool sax waaye dañoo teg jaasiya daw ñibbi waa ji di wax ak ñoom ñu ne ko hee xam nga lu xew ñun kii mënuñu ko gañe ndox mi mooy def loolu li ñu leen tere mooy def effet wala yonent bi saa salaam keroog ba muy xeex Uhud mu teg saxaaba yi ñu yor flèche yi ci kaw montagne bi mu leen bu leen wàcc situation bi lu mu métti métti yéen resté leen bu leen wàcc mu jël ñi yor xeej yi teg ci suuf bi xeex bi déparé rek ñi nekk ci kaw gis na jullit yi ci suuf rey nañ yéeféer yi jotoon jege si ñu ngay commencé di jël seen fas yeeg jaas yeeg nangam ñu nekkoon ci kaw naa ñun bu ñu fi toogee duñ am ci affaire yi de gars yi duñ ñu sédd ñu wàcc dañ wàccee lu xew ñu dóori leen rey leen dañ leen rey rey genn wàllu saxaaba yëpp kon dañuy jàng ci aaya bi mbokk yi ne nit bu amee njiit ci lislaam bu njiitam waxee da ko war a déggal tey nag musiba bi ñu def mooy islaam amul ku jiite loolu mooy sunu premier défaut soo gisee tey Israël di dóor Palestine guddeeg bëccëg ba tey jii may wax ak yéen fii ay xawma 49 morts Israël fi mu nekk nii xam nga lu ñu def képp ku libéré woon nekkoon soldat nga libéré solalaat nañ la indi la. 75 000 personnes lañ dugalaat tey ci armée bi waaw génn seen arme lu amoon yëpp mel ne adduna bi la ñuy gayral Palestine nga xam ne amuñu sax. ay jaasi amuñu dara parce que àddina bi dañ leen seetaan benn julli dee leen njëkk a seetaan lépp lu ñu am ay xeer ay xeer la ñuy xeex ak Palestine ay xeer ay xeer mais loolu ñuy ñàkk moyen ak jumtukaay yëpp yàlla dimbali na leen ba lu musul am ci histoire u àdduna moo am mooy capitalu Israël ubbi laal na ko xale yi lancé nañ fa ay ubbi capitalu Israël Tel Aviv fi mu nekk nii moo tax kéeféer gu ñuul gu gu weex gi ñëpp dañoo tiit waaye nag suñu dof loon ñoo xam ne adduna bi changé na monde bi changé na monde bi changé na ku mu neex ku mu naqari islaam a ngi ñëw billaahi wallahi taala bu yeboo ngeen yëkku kuy jullit bu yeboo nga préparé préparé sa njaboot terrain bi départ na de comme fi bàyyi fa yàqu nga gaa yi lan moo daaneel Moubarak lan moo daaneel Ben Ali lan moo daaneel Xadafi lan moo daaneel Abdallah lan moo yëngal nguuru Syrie ah islam lan moo tax fi mu nekk nii yahud yi ak nasaraan yi tiit mooy dañu ne at yu néew Amérique ci boppam day nekk moom alamul islam day ci bokk fal force première diine dafay ràññee foofu muy islam du du du effort u jullit yi mais yàlla la du effort u jullit yi parce que jullit yi moom amul dara lu mu liggéey l'islam dara waaye yàlla la yàlla moo moom l'islam yàlla moo moom alquranam yàlla moo ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna la mais Sénégal a ngi nii jàkk joo dugg tey ñen ñoo fa ëpp borom bi karaw yu weex wala borom kawar yu ñuul yi ah loolu moo leen ne lislaam a ngi ñëw pourtant borom kawal yu ñuul yooyu ñan ñoo leen indi kan moo leen indi seen papa indiwu leen seen yaay indiwu leen parce que jàngalu leen sax lislaam mais yàlla moo leen di indi xol yi ci loxo yàlla la nekk yàlla moo leen di tourné di leen dellu si ci moom loolu nag moo tiital àddina bi waaye jarul ñuy tiit l'islam kenn mënut a fexe ba du gouverner àdduna bi dañuy sonal suñu bopp man kay li ma yërëm mooy ñun jullit yi ñun ñi nga xam ne xamuñu li ñu am wala may wax xamuñu li ñu am ñun xamuñu ko xamuñu lu ñu am buñ bëggoon dund àjjana ci kaw suuf dañuy fexe l'islam jiite Sénégal lan laa namm ci l'islam jiite Sénégal mooy ñi nekk palais ministres yi ak députés yi assemblée beeg tout bu ñuy waat dañuy teg alxuraan ci seen loxo waaye fekk yéen a ngi am président boo xam day taxaw daan ne je jure je jure kese je jure au quoi chrétiens yi sax dañuy teg seen loxo ci bible bi Sénégal nag je jure ndeysaan Égypte laa gis président de la république bu ñu teg alxuraan mu teg loxoom ci alxuraan daa ne maa ngi giñ ci borom téere bi liñ ma teg dinaa ko def su ma naree war yal na ma yàlla alak ministre yi ñëw député yi ñëw ku nekk ñu tegal la alquran soldaar yi sax bu ñuy bu ñuy bu ñu leen di solal dañuy giñ ci kaw téere bi daan ne bu ma naree wër réew mi yal na ma yàlla war ah il faut il faut il faut kii dugg mu am lu mu gëm wala fii ñu bari dañuy waat avocats yi dañuy waat wala ah ñi def santé dañuy waat président day waat waaye xam ngeen lu tax du ñu respecté ci lan lañ waat dañuy laaj lan lañ waat je jure rek maa ngi giñ ci lan ci Firawna ngay giñ wala ci kan ngay giñ maa ngi giñ ci lan maa ngi giñ ci yàlla moom waaye maa ngi giñ rek ñi nax rek ñi nax rek gis nga lii ñuy wax ne ay audit ah du dara de demul fenn dañuy xumbal rek deux mois ñu teg ko ci suuf waaw ñoom tam ñu nekk fi jël ay milliards ñeneen ñëw ngeen mer jële fi ñii watu élection yi ñëwaat ngeen indi ñeneen ñooñu ñëwaat jël ay milliards ngeen indi ñeneen balaa ñeneen di ñëwaat fekk ñun coono gi rey nañu dee nañu ñeneen ñëw toog fi loolu rek la noonu noonu noonu la ñuy demee noonu la ñuy demee waaye bu ngeen fi tegoon ay julit yoo xam ne danañ ragal seen bàmmeel dërëm bu lewul topp leen ngeen féex teg nag góorgóorlu wuñ ci loolu duñ liggéey duñ dem ndeysaan gars yi nee nañ ban demee ba jàkkaarloog mbooloo ma ñu naan ca ndox ma ba ñu naanee ci ndox ma luñ def ñu daw arrière qaalu ñu ne laa taaqata lana laa taaqata lana alyawma bi jaaluuta wa junuudi ñun de tey mënuñoo dëkk jaaluut ak ay soldaaram waaye ci biir mbooloo ma ñi desoon ñi naanul woon ci ndox mi borom bi nee na qaala daa di wax allazina gaaya nga xam ne yazunnuna leer na leen wóor na leen ñoom ñi annahum ñoom mulaaqullah danañ dajeeg yàlla gis nga li ma leen di wax chaque jour ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla mënuñoo yem dañuy sonn afa najalul muslimin kal mujrimin ah maa lakum kayfa tahkumun ku gëm yàlla ak ku gëm yàlla mënuñu yem xoola ñi naanul woon bi ñu la dawee naafiq yi yàq affaire bi kërëj kërëj tiital mbooloo mi tey ngeen dee kii ñuy xeexal moo ñu mën moo ñu ëpp nangam kërërëra ba mbooloo mi daw parce que dañoo naanoon ñi nga xam ne moom wóor na leen ne dañuy dajeeg yàlla buñ dawee dañuy dajeeg yàlla buñ fi desee dañuy dajeeg yàlla bu nu deewee ci xare bi dañuy dajeeg yàlla buñ desee dund dañuy dajeeg yàlla gis nga lan lañ wax ñu ne kam bëri na ndeysaan kam non bi ñëpp dawee bañ des tuuti nit tuuti des ci ñu xool gis seen bopp benn junni moo fi des ci ñaata lañ woon juróom-ñaar fukki junni ñoom lañ woon juróom benn fukki junni yi daw mu des benn junni bi ñu xool gis seen bopp dañoo tuuti ñoom lu ñu waroon def ñu waroon ne ah nañ ñibbi ñun mënuñoo xeex ak ñii waaye dañoo taxaw ne kam bëri na loolu la tubaab naan héeri kam bëri na min fi atin ci mbooloo xalilatin bu tuute xalabat mu noot fi atan kasira mbooloo mu bari gars yi ñun tuuti nañ de waaye bëri na armée bu bëri ay nit ñëw mbooloo mu ndaw dóor leen lan moo tax ñi ñi ñi ñii mën li parce que dañoo ànd ak yàlla moo tax ku ànd ak yàlla doo ragal xam nga Israël lan mooy problème am mooy dafa jàpp ne am na bombe atomique am na ay radar ah dina ñëwoon Israël am na lan ay boucle antimissile wala du loolu la ñu gëm loo woon ku am antimissile ay roquette dinañ daanu sa sa sa capitale Amérique dañ ñu gëm la woon ñoom ñooy gendarme du monde ñu dóor leen bëccëg daaneel seen i tu lan waaw te biñ leen ñooñu leen ko doon def seen i avion leen jël seen i moyen bopp dóor leen ci kon ndeysaan ñun dañoo yeewul rek Israël dañu gëmoon ne missile du du du traversé dem capitale bi dajeeku na de yàlla moom mooy borom doole bi yàlla mooy borom kun fayakun gis nga problème bi du problème mu mbooloo du problème mu arme xoolal ñoom li ñuy am arme di am mboo di di am doole yépp benn nit ku dee ci ñoom day mel ne peuple bi yëpp la ñu rey te dañoo ragal dee ñemewuñ da ngay gis tey jii ñii ñuy jël di leen sololaat sànq télé bi génne waa joo xamante ne bëggul bàyyi jabar jeeg doom ñi mu ngi leen di tàggu di jooy nga gis xale yi Hamas du ñu ay soldaar di takk ay bomb dem di dee ñaar ñi yemuñ kii nga xam ne day xeex yi di tàggu yaayam di jooy ak jabaram ah nuróowul ak ki nga xam ne bii dem day bind testament yaayam naan ko yàlla nga fa dee bul delsi hani an laka shahada boo demee yàlla na nga dee xala loolu ñooñu nuróowuñ loolu moo tax du problème mu ay arme ku jàpp ne loolu la da ngay nax sa bopp moo tax gis nga lislaam li tax tubaab yi ragal ko xam na ne lislaam du ay arme saxaaba yi badr ñaata lañ woon ñetti téeméer ak fukk ak ñett yéeféer yi ñaata lañ woon junni ak ay fasaki gëléem ak mbaam saxaaba yi amuñu sax ay waruwaay tuuti juróom-ñaari nit ngay gis ñoo war fas ñetti nit am mbaam kenn war gëléem waaye lii alxuraan daf ñoo ne kam min fi atin qalilatin bëri na mbooloo mu néew mu tuuti waaye mu ànd ak yàlla xalabat mu noot fi atan kasir mbooloo mu bëri xam ngeen nu ko waral mu ne bi iznillaahi ci ndigalul yàlla parce que yàlla lañ àndal yàlla kenn du ànd ak moom di am defet léeg-léeg nga gis dëkk ñu gaañ julit wala ñu rey julit ñi wala wala nga jàpp ne defet déedéet du defet de maanaam yàlla mooy testé jullit yi ndax dañuy delluwaat suba benn ñaareel bi mooy wala jullit yi def erreur stratégie lu manqué woon ñu bàyyi ko am lu ñu waroon def defuñu ko mais jullit yéeféer warul ko gañe benn yoon su amee rek nattu la ci moom am na lu mu bàyyi wala am na lu mu deful wala am na lu mu fàtte wala dafa dem wóolu ay armam ak ay moyem bàyyi yàlla te arme bi lu muy bëri mbooloo mi lu muy bëri dafa war a am ku nekk ci kanam mooy yàlla yonent bi loolu la amoon moo tax saxaaba yi doon ànd ak moom doon xeex suñu yegg si woon ci dëkk ba ñaari équipe yi jàkkaarloo kii waxal jullit yi danaan ñi muy waxal yéeféer yi imma shahada wa imma nasr ñaari yooyu la jullit yi tegoon seen kanam moo tax kenn mënu leen woon dékku xam ngeen imma shahada mooy lan bu ngeen ñu reyee ñu ngi nii bu ngeen ñu reyee ñun àjjana lañ jëm su ngeen ñu bàyyee ñu samp li ñu bëgg ko ku mun a xeex ak moom koo xam ne ñaar yëpp pertul bu dee aj dafa gëm ne àjjana la jëm suñ ko bàyyee mooy day samp lislaam Xaalid ibnul Walid daraan wax yahud yi mu doon xeexal ak nasaraan yeeg ñeneen yeneen réew yi ñii ma leen indil de yéen ni ngeen bëggee dund ñii loolu lañ bëggee dee da ngay gis ku dem jihaad ñëwaat naan man xaw ma tax deewuma am na lu ma def toog di xool semaine bi lan la deful ah, samedi dama biddanti demuma jàkk loolu moo tax deewuma démb démb altine la woon dama woorul woon barki démb naafila mooma guddi gis nga dañuy toog di critiquer seen bopp am na lu ñu bàyyi moo tax bi ñu demee jihaat deewuñu ndax kuy dem da ngay tàgguwaat sa waa kër ne bëggumaa ñëwaat jàngeen histoire eh, papa ji ak doom ji ñu war a dem jihaat papa ji woo taaw bi ne ko diw mu ne ko ah mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko maa ngi sant yàlla ba nga nekkee sama taaw kër gii maa ko sampoon waaye tey maa ngi sant yàlla mën nga ma fee wuutu waaw ndax li ma doon ñaan rek mooy ma jur doom ju mel na yow xam naa ne ëllëg bu ngeen ma gisul yow mun ngaa yor kër gi leen rek laa lay ñaan mooy nga toog fi man dama bëgg a dem ànd ak yonent bi ma jaat ma ñaan yàlla ma dee foofu yow nga toog xaar ma fi doom ñu ne ko déet papa kër gi sa kër la yow yaa war a toog samp kër gi nga bàyyi ma man mi amagul jabar amaguma doom ma dem ma dee doom déedéet toogal rek ndax yow sa avenir mu ngi ci kanam da nga war a takk jabar da nga war a am ay doom toogal sa yaay a ngi nii papa déedéet wala ñuy xëccoo fu mu mujj ñu dem yonent bi pour mu attale kan moo war a dem ñoom ñaar est-ce que ñooñu ñu naroon na ñëw ñun ku nekk xam nga ne jihaad dee moo ci nekk te waxuma jihaad yi yii sax mën ngaa dem ñëwaat parce que ay bomb la bomb bi mën na war a bañ a da mais xoolal yi ay jaas yi ngeen jàkkaarloo kon mbokk jullit yi ay bu ñu ñuy jàngal yàlla naan ñu kam min fi atin qalilatin bari na mbooloo mu néew mu mbooloo mu tuuti ay nit yu ndaw looloo tax gis nga bu kenn wax ne lu bon dafa bëri ba ñun ñun ñi ñun ñi dañoo tuuti mënuñ ci dara tey ñun ñi nekk ci biir jàkka ci suñu gëmoon ne mun nañoo changer l'islam rek mun nañoo changer dëkk bi rek léegi dëkk bi changer buñ ko gëmoon mais suñu problème mooy buñ fi jógee nii dem toog fajar jot ñu dem jàkk delluwaat tisbaar jot ñu dem jàkk delluwaat takusaan jot ñu dem jàkk delluwaat samedi jot ñu ñëwaat tafsir jeex na waaye bu ñu gëmoon diine bi ne ñun mun nañ koo tas ci biir réew mi ñun ñu toog fii rek ñu jaayante pour lool rek incha allah léegi mu taxaw gis ngeen Égypte tey da ngeen dégg ñu ne frères musulmans yi ñoo jël nguur gi idée boobu fu mu jóge juróom benn nit la woon juróom benn nit frère musulman juróom benn nit ñoo ko samp tey ñaata at ah ah mu ngi jógee ci al imam hasanul banna ñaata at rey nañ ko fekkewu ko rey dafa dem conférence di ñibbi si ñu dóor ko bal mu daanu ñu jël ko yóbbu ko hôpital ñu téléphoné docteur yi bu ko kenn laal mu saña ba dee mbooloo mi ñëw bu ko suul ñu ne ñu interdit bu ko kenn suul papaam moo ko sang moo ko suul yi moom kese papaam kese tey jii loolu ñu taxoon ñu rey mu ñu rey ko samp na problème bi du ñu rey la mooy li nga gëm mu samp samp na tey loolu mooy wax bi benn nit yonent saa salaam benn nit la woon bi ko yàlla yónnee mais ana idée bi tey partout la tasaaroo dans le monde benn nit ñun ñaata lañ ci biir jàkk bi wax bi mooy ñee la leen animé woon mooy ñun moonu animé wul yal nañu yàlla yërëm ixwaan yi mu ne wallaahu yàlla maa saabiriin mi ngi ànd ak ñi muñ damay wax chaque jour di fàttali waxu boroom xam-xam bu mag boobu tudd Saïd Hawa rahimahullah Saïd Hawa nee na bu ngeen di jàng alquran bu aaya yi jeexee na ngeen bàyyi xel aaya bi fu muy jeexee aaya bii ñu jël tey aaya bi fan la jeexee inna allaha maa sabirin wallahu maa sabirin wallahu yàlla maa sabirin mi ngi ànd ak ñi muñ mi ngi ànd ak ñi muñ wala yàlla waxul maa ngi ànd ak groupe sàngam waxul maa ngi ànd ak mbooloo sàngam waxul maa ngi ànd ak waa kër sàngam waxul maa ngi ànd ak diw sàngam lan la wax ku muñ rek ànd naa ak yow wallahu ma sabirin foo mën a nekk waxul dëkku sàngam waxul wallahu maa ahlu makk wallahu maa annabi wallahu maa sahaba wallahu maa wallahu maa sabirin yàllaa ngi ànd ak ñi muñ lan mooy muñ gis nga mbooloo mi dañoo tuuti muñ nañu naanuñu ci ndox ma waaye muñ nañ li nit ñi daw muñ nañ dajeeg ponkal mi nga xam ne mooy jaalut ñu résister ko dékku ko taxaw ci kanamam moo tax yàlla may leen ndam samedi bii di ñëw insha allah ci kàttanu buur bi tabaraka wa taala dinañu gis nan la leen yàlla mayee ndam nan la yàlla àndeek ñoom ba ñu muñee kon li moo doon darsu tey ñu ngi jéggalu njuumte yi ci nekk asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu